waaw kay li may tontu si euh, waxu ndongo yi euh, dañu jàppoon rek benn bataaxal bu ñu fi andi woon euh, tënk seen i ñaxtu si ay poñ yoo xam ne yi daanaka dañ si dellusiwaat rek ndax poñ la yoo xam ne waxtaan nañ seeg ñoom ba école di soog ubbi ndax bañ ko andee sax laataa ñuy pare laa leen ne seen poñ yi de bu fekkoon ne xamoon ngeen waxuma xamoon ngeen sax mais toppoon ngeen rek ne école bi dundee. di ngeen xam ne sant yàlla rek leen war te ngeen dem jàngi te xam ne euh, tey amatu leen dara lu ngeen war a ñaxtu si wàllu njàng mi ndax lu ngeen xalaat si bëgg-bëgg fekk na man maa ngi si wala bu fekk na def naa ko pare ndax la leen koy won ma ne leen mu ngi nii li ngeen jëkk a laaj mooy euh, nañu xoolaat mbiru Medina Fall nee nañ ñoom Medina Fall gi ñu nekk euh, nañ ko xoolaat mais Medina Fall lan lañ si xoolaat ñoom ñoo fa yóbbu seen bopp ndax ñoom ñoo fi taxaw ne ma Koli Diop ga nekkoon ak Idrissa ak Jules mënatuñu faa nekk seeni délégué taxaw fii wax ko topp ma si ñaari at pexe bu ne ma def ko ndax nañ ma foofu wóorul dafa bëri ay oto dafa bari ay pax caniveau yi kenn du ko tëj ma jël nit boole kook ñoom si ASP yi muy ndóoyi ne ko saa yi ñu wàccate car bi gungeel ma leen ba ñu dugg seen école bu kar bi dem di leen jël jëli àndala car bi nga wàcc xëcc leen ba si biir car bi nga dugal leen kooku dem na seeg ñoom ba finalement euh, xam na ne euh, déggoo wala ñoom si loolu ndax xëy na xale yi bëgguñu woon loolu ñu destiné ma ñun li ñu gënaloon kay mooy bu ñu mënoon am beneen école may leen ah waaw beneen école mais nañ am moyen ma waxtaan ak samay ba ñu waxtaanee ba gis ne école bu mel ni lycée Jules Sagna non seulement euh, pardon lycée na fal non seulement lycée ba yaatu na mais am na sixième ba terminal si laa leen woowaat ne leen bon comme yéen Jules Kory Diop da ngeen ne dafa bare ay danger wóorul si yéen Euh, Jules Sagna ne ngeen amul leen classe bu ngeen fa toog Medina Fall directeur école élémentaire sama xarit la waxtaan ak moom ne ma bibliothèque ba yaatu na mën na leen fa jox wax ne fi seen salle de ressources la doon bu ngeen bëggee sax mën nañ dem xoolal ko suñu bopp ba mu ba mu doy leen. ba ñu demee ba gis bibliothèque ñoom seen bopp ñoom mu njëkk ne de fii baax na ñu del si dem d' accord nañ si lycée Jules ma daal di leen doxal ko doxal doxal leen lu waxtaan seeg IA ba inspection ko woo proviseur bi euh, si lu jafeñ sax ba finalement ñu accordé leen mais toogaguñu si ba juróom-ñaari weer sax dema dañu bëgg a delluwaat euh, xam nga ne loolu ay wax la yoo xam ne ku gis xam ne nag dafa mel ni mbota muy bajantu rek mais lii du du wax du wax yenu maanaa ndax mënoo laaj jox la ko matagul sax juróom weer nga bëggatuma ko dañ ma ko delloo lu mel noonu moom laay méngale ak li ñuy laaj si waañ bi ndax lekk gi at bu nekk ñu ñëw mbiru lekk rek euh, bëgguñu bëgguñu maafe defal ñu ciw ginaar nga def ciw ginaar ñu bëgguñu ciw ginaar nangam la ñu bëgg alors ba finalement may leen nag mënuma at bu nekk Euh, fu ngeen fi tege bureau rek kooku ñëw ne ma euh, lii la ñu bëgg ñu togg ko mënu nekk te mënu ma aussi ku nekk ma toggaloo la nga la nga bëgg léegi réunion bi dañu koy def te ñu tënk lépp te buñ ko fi defee lu ñu fi jàpp bu leen fi ñëw déwee ne mën nañ ko dindi wax leen ma li ngeen bëgg ñu dugal ko ñu ne ma waaw maafe dellu si ma bind ñuy lim di lim ba lépp mat ñu commencé leen ko toggal daaw ba ren si loolu la ñuy dund école ubbi ren ñu ñëwati gis nga leen la ñu bindati nee ñu xoolaat moo demee nañ ko changé waat waaw mais xale ñu bëgg lan ñu bëgg at bu nekk ñu ne nañu changé mais kooku mënta nekk ndax am na yoo xam ne aussi sunuy doom la ñu dëgg la waaye nag la nga xam ne ñeme wu ñu ko def sunuy kër ñeme wu ñu ko def si ñoom tamit seeni seeni seen i kër seen i kër waajur mais war ñu ko teg fi ndax ñu la ñu mais aussi dañu yore doom comme ñoom am na yoo xam ne aussi dëgg dëgg dafa dafa ndax aussi am am laago warul tax nga laqatu si ginnaawu laago googu aussi nit ñi dañu maa ñeewante rek ba lu ma neex def saaga mag ñi lu leen neex lañ fi def dana ñu saaga dana danañu lu ne lu ne luñ fi def rek amul ba tax na àjjuma si la ñu ñëw ak lii ma lii yi may lim nii taxaw nañ sama bureau fii lu ñu ma def en tant que seen kilifa yuuxoo yuuxu saaga rek a si des doyatul ñu demati si ki ki taf si man mu ma dem Konaté toj bi toj toj euh, vitre bureau ba taxaw si lu leen neex la ñu def génne xale yu ndaw yi si biti te mu doon loo xam ne lii bu fekkee ne wutuñu si saafara dañu yor fi ay xale yoo xam ne juróom benn at ñoo nekk fi si école bi ba fukk ak at ak ñeent mag ñu toll bu ñëw di dugal loolu seen xel lan lay jur ëllë ay xale ne loo xam ne si si ak yaradi ko la ñuy màggee ak si si si si ñàkk fonk kilifteef euh, donc ñaari point yooyu peut-être li ñu si teg rek mooy wàllu bibliothèque bi ñuy wax maanaam téere yi ñu war a jànge dëgg la téere téere yi ñun ñëpp xam nañ ne Sénégal amoon na si problème ndax xale yi téere yi ñu war a jànge yu si bari kenn moolu ko si euh, si ñoom nañuy lire muy baraay bi waaye man ba ma fi nekk ak léegi maa ngi siy def ak ñoom ay jéego lu ne jéem naa ko si samay partenaire waxtaan nag ñoom ba am na lu ñu ma si defal loo xam ne mu ngi fii xëy na matewul lépp mais am na lu fi ne lu xam ne lii war nañ si mën a jàppandu ndax leneen a ngi ñëw ndax gouvernement tam def na si jéego bu rëy si wàllu bu muy waaj a bu def laaj nañ ma li mu laaj yëpp jox naa leen ko si wàllu jumtukaay ba am naa yaakaar ne si kanam tuuti di ngeen gis ne gouvernement bi def na jéego bu rëy pour andi leen livre yooyu waaye bu fekkee yooyu yegg seegul mais li fi nekk nañ ko jëfandikoo waaye bañ ko fi defee léegi kenn si ñoom du fa wala boog ñaar ak ñett ñoo fay dëgg seen tànk daaw woon naa leen fi ne leen bu fekkee ne na bibliothèque bi doxee gënalu leen wax naa bibliothécaire bi ngeen dem wax ko naka ngeen bëgg ñu leen di joxe livre yi bibliothécaire baa ngi fii nee na ma xaar na leen woon na leen ba tàyyi kenn dëgg fa tànkam fu ne ko lii la ñu bëgg ak laa kon kay ñoom la kenn xamul lu li ñu bëgg kenn xamu ko ndax boo ne ndangam lay laaj ñu boole la koy defal ne demal nga waxtaan wax la nga bëgg mais nga dem moom mi di président bi barki démb avant muy def grève bi wala muy def bi altine la la tas ak man si si cour bi ne waaw directeur temps yëpp dama laa bëgg a gis waaye dama la bëgg a gis ndax sunu sunu plateforme ma ne ko mais yow xam nga ne heure yi ma fi nekk ak heure yi ma fi lu nekk war nga tàmm heure ba nga may fekk foofu ndax man sama wér gu yaram mayeetu ma ma di fi toog ba ay 20 heures waaye mercredi xam nga doo jàng mu ne ma mercredi du ma jàng mu ne waaw mercredi da nga ñëw mercredi fii nekk ba 18 heures 30 xale bi ñëwul alxamis ajjuma mu xëy mobiliser xale yëpp. amate leen fii di yuuxoo ko def yu kenn xamul moo lay wan ne kii gise bi intéressé ko kon il fallait que mu am lu mel nii ndax itam euh, journalistes yi foog ñu xam loolu si xale yi euh, yàkkamtiwuñ lu lu mel ni am pour ñu woo presse bi jël seen téléphone nag ku nekk ñu la dégg nga ma rajo yooyu rek leen si intéressé mais nag yooyu mën nañ ko jàppee yëfu gone tant que balewuñ si yàq voilà wàllu ñam yi defe nga ne bu ñu taxawee ne INEFJA da leen toggal ñam bu nëpp waaw ñam bu nëpp bu ñu koy toggal nit muy dund ba naga nii ah dooy na war de te te rax si dolli la ñuy lekk bu doon ñoom rek koy lekk xëy na nit mën see am lu muy xalaat mais la ñuy lekk la fi ñëpp ñi fi nekk ñëpp di lekk te bu ngeen génnee ngeen war école bi yoon laaj mag ñi docteur ngi fi ak ay njaboot ak ki doom te fi jëkk saytu lekk gu sell ak wér gu te moom la ñuy lekk lay lekk xanaa kenn docteur moom du nangoo nag di dundee yàpp bu nëpp mook njabootam boo xamante docteur sax lekk waaw nekk yëpp di ko lekk ñoom ñooñu dong ñoom ñu koy wax rek xanaa ñoo fi gis yàpp bu nëpp ak kañ lañ ko fi gis ndax fii li fi lenn rek lañ fi gis ñaari weer si am na ñaari weer yàpp boo xam ne bi si bi courant yi commencé waatee coupé commencé woon na fi yàqu te ñoom sax bala ñu koy xam cuisiniers yi ñoo leen ko waxal seen bopp dal di may woo ndax fekk dañoo tiit ndax da la fa nekkoon dafa bari ñuy ragal xëj na bokk ma ma am lu ma leen yeddee si ne yéen a yàq yàpp bi ma ne leen déet mais kooku bu leen si tiit du yéen nu yàpp bi mën a toll seetal leen ma ko bu amee lu si yàqu tuuti na lépp dañ maa ñëwal sama bopp ba mu ñëw gis ne dafa am benn partie bu ñu defoon si congélateur bi te bañ ko fa tegee defuñu koon si ay mbuus gisuma si sax ay mandarga mais comme xet gi xawoon na soppi ko may leen gis nga waxuma la bii waaye moo ki fi nekk yëpp comme ñoo bokkoon frigo bi na yëpp génn ëppoon lu mat juróom-ñetti fukki kilo yàpp ma woo contrôle général des finances ne laa bëgg nga nga génneel ma yàpp bi lépp dañ ko génne kenn togg fi yàpp boobu ndax wuñ ko ndax maa ko génneel sama bopp donc yàpp lekk gunóob kenn du ko fi togg ndax quand jox loo xam ne li sellul donc bu loolu weesoo peut-être euh, euh, li ñu waxati mooy nañu gis nañ leen nañu xoolaat euh, jokkalante seen diggante ñoom ak comptable beek intendant ak infirmier waaw mais xale yi comptable ak infirmier du ñu seen du ñu seen du ñu seen mappandoo ñooñu ñooñu man ma leen di jox ay instruction rek am na amu xam nga ban façon communication la ñuy wax ndax li ñuy reproché fajkat bi dañ la fajkat bi bu ñu ko soxlaa duñ ko gis te moom nee na ma guddi sax du fi nekk dañu koy fekk këram di ko yee te moom am na heure yu mu a wàcc mais saa yu amee urgence terewul mu jël taxeem yóbbu leen hôpital bu dellu wees lu xam ne la weesu na capacité école te loolu man am na lu ma si seede bés bu ne mu jël fi élève yóbbu lu mu mën a def fii mu ngi fi te benn médicament manqué wu fi ndax fi lépp lu mu fi laaj si commande ñu jox ko boobu mot sëkk donc li des nag mooy communication bu dee communication seen diggante ak infirmier bi xëj na bokk jëflante buy jëflante seen diggante jëflante buy jëflante ak ñoom ñoo ko war a sàmm si teggin nga ñuy wax ak moom si des nag gisuma si leneen si wàllu liggéey voilà